président bu ñuy dimbali ministre wala président bu ñuy dimbali dindi ndox ñi ñu sax dañoo indoon ne ñu. soxna Mously Ndiaye di bàjjenu gox ci gox bi ñu nekk di liggéey ci wàllu santé léegi nag ñun gis ngeen suñu koñ bi ni mu mel akum ndox depuis man bi ma ñëw fi laa fekk ndox mi 93 ba léegi maa ngi fi to ndox mi mosu fee jóg aat mu ne ñu sëkk te sëkk boo sëkk dafa dem ba suñu buntu fenêtre yi ay buntu kër la mujj doon. sonn nañu guddi sonn nañu bëccëg feebar yi bari na fi lu demee ni biir bi daw li demee ni sibiru ndaxte foofu fekk ndox yoo yaa ngi fay jur bu ko defee nag doomu jàngoro bi ne fi du fi jóg sibiru du fi jóg sonn nañ guddi sonn nañ bëccëg feebar bu ne mën na fay soqi koo fépp la ndox mi baaw koo di dikk fii di fi costati kon nag nañ ñu dimbale ngir yàlla ak yenente beeg sëriñ Touba yéen autorité étatique yi bon volonté yi na ñëpp ñëw jàpp ci ñu fexe suñu boor yi ñu defal ci tali ay ay canalisation ñoo ngi bëgg a dee ak jàngoro sonn nañu. xale yi dañuy dab ba sonn jigéen ñi mënatuñoo xëy mënatuñoo gont suñuy dem dañuy tëj seen doom yi te tëj sa doom ci déyum néeg wóorul te bàyyi ko tamit muy nekk ci ndox yu wóorul ndax jàngoro yi bari na fi seen yaram yaa ngi yàqoo yàq bay bëgg a dee jàngeetuñu te loolu nag réew li koy euh, jëmale kanam xale yi jàng ba ma a xam waaye nag lii mënut a ànd ak jàng mënut a dara. mënut a ànd ak jàng mënut ànd ak dara mënut a ànd ak wér gu yaram soo amul wér amoo dara. jaboot jàmmay mbokkam nan ñu dimbali jaboot jàmmay mbokkam ndox mii na fi jóg dimbali leen ci jàppale les bonnes volontés autorités étatiques yeeg yëpp nañ ci jàpp. waaw ndox mi daal moo ñu jaaxal lool lool lool ndax euh, fi ngeen jógee sànq di daaray kër maam Thierno Mbacke kenn jàngiwul tey kon nag na ngeen ñu baax ci mbedd mi nu ñu mel ndax xale yi di jàng. ci daaray maam Thierno Gueye laa nekk nag jugee Ndakaaru ndox mi fekk ma fii metti na lool lool lool lool fu metti yam ngeen dimbali ci ngir yàlla ak wara a suur ñun dañuy jugee Dakar ñëw fas yéenee màggal. nekk di jàngal ay xale nag ay xale ñëw di toog ci ay ndox rafetut rafetut jaaduwut ci dëkk bu tedd gi nga xam ne ne dëkk Serigne Touba gii lañ ciy wuti ñaan di fi wut ci sàkku ci ñaan ngeen dimbali ci. ñu ngi ñëw fii ci Euh, marché Ocass puisque ci la bokk jàpp Kër Ñang yaakaar naa sax bu ñu duggoon ci biir dina gën a garaaw bu ñu gisee ñu ñëw fi nag mbir mi du mbiru politique wala lu ñu politiser dafa am loo xam ne dafa ñaaw ci dëkk bu mel ne Touba. rawatina mouvement présidentiel bi fi nekk nga xam ne suñu waxee ñu ne jël nañ ay centaine de ay centaine de milliards investir ko ci assainissement wu Touba te ñun gisuñu dara tey ku gis ndox mii nga xam ne gis nañ ko fii. te lii ay benn gox la ci Touba te quartier bu ngeen dem ci Touba lu raw lii ma nga fa buñ nañu président li mu investir ci assainissement Touba kenn defu ko loolu ñun dañu tiit te ay caaxaan day dugg. boole ko màggal gi mi ngi jub si gani Sëñ Touba yi ñu ngi ñëw ci dëkk bi dëkk bi na ñun ñu ko dëkk buñ ñu nawloowut nañ nawloo gani Sëñ Touba yi màggal si. parce que ñàkk ñoo nawloo wul gone yi nga xam ne ay moyen de 15 ans seen sa yaram day daw moyen di 10 nekk fii. seeni yaay buñ xëyee duñ dem fenn duñ dem liggéeyi duñ dem marché duñ dem fenn ndax tiit la ñuy def bàyyi fi seen njaboot ñu dugg ci ndox mu salte mii nga xam ne feebar bu nekk mën na leen cee dal feebar bi leen ciy dal bi gën a sedd mooy siburu te siburu ñëpp xam nañ ni mu gaawee ci rey nit ak li muy rey ci àdduna bi kon ñi ngi avertiser ñi nga xam ne ñoo yore onage ñi ngi avertissé monsieur le maire Abdou Lahad Ka ñi ngi avertir tamit le président de la république waxoon ne Touba mooy deuxième ville capitale économie du Sénégal et popularité nañ ñu jox suñu cër nañ ñu wormaal ñëw defar dëkk sëñ Touba bi buñ ko defoon ngir sëñ Touba tamit def ko ngir population yi fi dëkk parce que dëkk bi mate na ko am nañ ressource boo xam ne mi ngi fiy génn di dem trésor à part Dakar amul kenn koo xam ne ñun li ñu verse trésor yaa ngi koy verse trésor te suñu jógee ci gox bi tamit dinañ dem ci yeneen gox yu bii wan leen mbooleem Touba gox bu nekk la fa nekk ci ay caaxaan te nag kilifay dëkk bi suñu toogee di xalamal Macky Sall ak di ko tagg naan def na ci dëkk bi lu kenn deful nañu arrêté caaxaan yi Macky Sall deful dara ci dëkk bi kilifa yi sëñ Touba bi ñuy booleeg ñoom pour ñu jàppale ñu la gestuñu mais dugg ci sa salle climatiseur dugg sa oto tabax say kër di seetaan population yi bu ñu waxee nga xalamal président di naan président li mu fi def ak nangam nangam Touba li ñuy sanctionné président dafa leer parce que moo ko fi jëf moo ko fi wax. Eh, di leen masaw rek tey di am aw naqar ci li fi xew parce que dañ ne wa atul buyuuta min abwaabihaa kuy dugg ci néeg ci bunt bi ngay jaar kon looloo waral sun tànk yi fii di ñaawlu taxawaayu monsieur le maire parce que nag ndimbal na ca fekk loxol borom waaye ku gis lii xew ci dëkk bi xam ne jéemu ci dara. suñu su laaj xaalis jotee ñu taxaw laaj xaalisu nit ñi laaj xaalisu commerçant yi fay fayloo nit ñi seeni i taxes war a fay lépp bu jëf jotee ñu ne maire bi dafa compétent nañu bàyyi loolu. mairie Touba ay milliards yu dul jeex moo fiy dugg Abdou Lahad mais nekk ci commune rurale bi man moo may daggal. at mu jot dinaa dugal lu ma 2 millions. ci commune rurale bi te at mépp da ngay dagg reçu annuel bu màggal Tuubaa jotee ñu ne reçu bi primé na daggalaat la lu neex parce que amul yenn condition parce que jëmmi maire bi mënta bi numéro téléphone moom lu ko neex rek lay xaatim te lu mu def mu jàll wala police diggante Macky Sall ak Touba sawara ak caas waaye nag moo yaay sabootee Touba ni mu ko sabootee parce que 2012 dañ ko laaj ne ko sëriñ si mu ne ay citoyen ordinaire lañ ku xool kanam gi xam ne mi ngi sens ku bañub sëriñ la rawatina sëriñ bu dëkk Touba. biñ koy laaj affaire borom ñaari tur yi ngoor ngóor jigéen yi. daf ne loolu ñu ngi koy xool parce que du mbir moo xam dañuy jóg song waa sëriñ si lañ war a jóg song. ñoom ñi fi nekkal Macky Sall di ko defal bilan ku ciy wax da nga naan Macky Sall def na 12 milliards ci assainissement Touba Touba bu xiinee rek day taa 12 milliards yi moom dugg na Touba ndax. gang bi fi nekk ak seen li ñuy wuuree xeeti wu wuure wuure wuure wi nii wuure ñëpp xam nañ ko 12 milliards yi moom dugg na waaye du ay tiwo yoon suul ay liquidité lay ci poche ñu séddoo ko. ñu ngi fi tudd beneen hôpital boo xam ne niveau 3 la benn hôpital boo xam ne niveau 3 la xaalis bi dugg na ba nu séddoo ko def ko ci ay poche bu fekkoon liggéey bi mu ngi dox heure bii may wax ak yow. bi war naa sori waaye ni ñu def douze milliards yooyu nga xam ne nee nañ def nañ ko Touba te Touba mairie Touba li muy jël ci alal ci dëkk bi amul benn maire burul bu Dakar bu ko mën a génne ci sab gox bu laaj jotee ñu laaj bu def jote ñu ne dañoo dañoo dañoo incompétent nañu bàyyi loolu.